بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا قول ولا قوة إلا بالله علي العظيم السلام عليكم بك جلدي قبل كل شيء دشيار شريف عبد الله خليفة المسلمين ابن عيسى رو الله ابن إمام الله إمام كل إمام إمام الأرميني أن بولم جبوتم أهل البيت رسول أقوى أهل البيت الله يب et bo len deggene ak wote bi mom moy union des jeunes layen bu senegal si di njiital njiital bi di euh, ki nga xam ne mooy Sidi Yalaay et ànd ak euh, waa amical ak étudiant Layeen ak waa Layeen assistance médicale ñoom ñoo fas yéene amal benn don de sang lan mooy don de sang maanaam maye deret ñi nga xamante dañoo am deret ñi nga xam ne dañoo ñàkk deret ñu fas yéene leen may deret te mu bokk ci lislaam ñuy dimbalante ñoom ñooy amal bis boobu muy don de sang bi incha allah ci fukki fan ak ñeent ci weeru mars bi ñu ne muy le 14 bi ñu jëm incha allah ca yoof ci wetu institut islamique bi jàkkaarloog jàmmalaay ca yoof mbokk yi woote baa ngi noonu ñu ngi ci woo ñëpp koo xamante ni am ngi yéene daal di daal jël sa deret may ka koo xam ne dakaa ñàkk ndax loolu moo ko taxay dund nu ngi lay woo ci le 14 mars nga ñëw fële ca yoof ca institut ba di woo ñëpp di ziyaaraat ñëpp di ñaan baay bi la yàlla na fi yàgg te gën a wér wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.